du di kontaan nag monsieur Ousmane Sonko monsieur Sonko xeex bi metti na mais man dama xam ne yàlla dafa jox mission boo xamante ni ku la gëmul nag gëmul mais nañ bàyyi ñu gëm wax dala jox mission boo xamante ni j'ose espérer que dama lay sax tutoyer tey que tu es bien entouré sama bopp bi tamit metti na de bi tuuti bees la maa ngi bëgg a dee yow sa romb gi la la yooyu wuy ma wuyu jaar sama ginnaaw sama yaram day daw dégg nga bébé maa bëri rab bul jaar sama ginnaaw sama yaram day daw li may wax mooy yal na la yàlla jàppale ti barki borom Touba yal na la yàlla jàppale ti barki ku tedd ki ah ma kilifa may woo foog ma jël ko parce que mënuma ko ngeen ma may leen ma tuuti rek ma jéggalu parce que dama gisuma woon appel ma dem moom man lay woowaat xewe wala xaama ñëw xaaral waa paa maa ngi jéggalu dama nekk en live maa ko ñaan rek bàyyi ma yeggali allo allo allo Pa oui su ma ma maa ngi live waaw may may ma yeggali rek tuuti dégg nga allo waaw merci beaucoup jërëjëf yàlla na la yàlla fay li may wax mooy am na loo xamante ne nit moo ko moomal boppam kenn waru ko ko ñaan mais Ousmane Sonko yàlla na la yàlla lafal cat tànk boo yëkkati yàlla na fa yiw yàlla jublu yàlla na la yàlla làq fu yàq yeggul parce que appel yi yëpp ak machin bu ñu woowu moom dañoo tiit ñoom ñëpp tiit nañu ñoom ñëpp tiit nañu man nag ku nar a yaakaar nii da ngay xaritoog man bugg bañu ma sax ku ma wax mais am na conviction boo xamante ne man dama ko am te takk naa ci ba pare tey su ma si noppi woon sax de retiendra kon sama xarit yi nga xamante ne tey bañu ma ay débat bañu ma ñu dem ci confrontation mais lu ëpp tuur parce que sama papa mi nga xam ne moo ma jur sama yaay nee nañ ma bu nekkee lii nga gëm te moom ngay xeex bul saaga bul fen bul jëloo moomut dem ci ngor kii nga xamante ne laa bëgg nee na ma maa ngi lay soutenir sama waakar kër a ngi nii toog yéen lan ngeen bëgg yéen da ngeen foo nekk man benn arriviste laa boo xam ne yéen mun ngeen ko xoxotal dama ànd ak yéen ci njëkk ak teraanga kon respectez moi c'est pas parce que nag doo leen ma dégg que ku ñàkk fayda laa xaw ma loolu te musuma nekk dans le samay parents yarewuñ ma pour nekk dans le besoin sama yaay je vais vous raconter sama papa dafa joxoon argent de poche xam nga xale day nëbb cent cinquante mille xaw ma deux cent mille je sais plus bu ñu nekkee xale may dem ma génn cent làq benn cent bi ma toogee tuuti ma gis ne sama yaay moom boobu ma nekk xale yoratul xaalis ma yërëm ko ma génne cinquante mille ne ko yaay am sama yaay dafa jël xaalis bi xool ma jàkk sama yaay ni la toll maa ngi ko sutool mais ni ma xoolee mosuma ko fàtte mu ngi nii ci néeg bi tëdd yaay e e yaay e da nga yeew demal tëddi jàllu demal tëddi yaay yaay man mënu ragal sa papa nee na ma ragal jàllu jiiri da maa ñaanal ma bëgg la ngay sama buur di sama uru ay ni lu ma am yaa ma ko gënal yaay du ma am ku la sut même bu nekkee xam naa ne wax bi neexu la waaye yaay mbajum kanam borom moo koy fajal boppam te yaay nag sa doom du ragal dama ànd ak dal rek ndax nii alhamdulilah mais kii ci lim ma woo ma ko dàkk waaye tey lu ñuy wax yaayu diw doomu diw moo saaga moo def subhanallah yàlla ka ko Dieu m'en préserve parce que nit nit kese nga yaa booy damaa bëgg nga dem tëdd nelaw lu dul yàlla neen la sama destin bi lu ci yàlla tudd yaay alhamdulilah Diallo Diéry sa doom dafa liggéey fii Sénégal depuis des années mais xam nga lu tax ma bëgg sama kër gii samay parents ñoo fi nekk. dugg génn amu amu fi. yaay mënuñu ma ko xamal. bon bref bëggu ma sax dugg gaam boobu bon bref en tout cas li ma doon wax mooy ragal moo tax ñi nga xam ne dañuy wax ak yow ñuy xuutal parce que man tey télévision lañ ma xamee ak man kaay defar ba mu tëb. di sol lu ma neex tey laa koy gën a mën ba keroog ni yàlla def sama xol leneen ma bàyyi kii di tax ma taxu ko nag tey du dara de parce que lii mu moo tax ndax xam naa ni barki borom Touba li mu liggéey ak li yàlla maye mu ngi ci moom moo tax ma teg ko nii muy parabise muy barrière sama diggante ki yéen parce que li ngeen mën mënuma ko li ngeen am amuma ko waaye am naa làkku ak gannaaw goo xamante ni kuy xaar ma daanu da ngay juum te ku dugg ci man torox barki Cheikhul Khadim bëgguma bàkku sax xanaa dem sant yàlla bugguma bàkku sécurité no amul solo bàyyi amul solo fii lu waaye def boppam <laughs> dañuy dee ñu ñëpp lu waaye def boppam lu waaye def boppam mais dafa am ñu ma rus moo tax ma waxee nenn ñi bon bref nday ndaag man la aaduma léegi déglu leen lu génnal ci politique bi ngay wax rek li ngay wax xamul ci dara ngay tarale rek salaamaaleykum aada ah, na nga def yaa ngi ci jàmm dèjà da ngay nuyoo oh. da ngay naan salaamaaleykum ba pare balaa nga naan day ndaaj parce que maa oh, ngi yow mosuñu wax xamante wuñu du dëkk kon koo xamante ni miinoo ko booy wax ak moom téléphone da koy nuyu ba pare nga soog a wax leneen yow yaa ngi wax ci loo xamante ni da nga sa xam dara kenn dalaa wax dara yow kenn nekkal ci li nga nekk ma nekk ci la ma nekk am déet nit koo xamul ko boo ko miinul doo ko ñëw dugg sarax comme si maak yow ñu añu ñëw démb wala waxuma dëgg bu baaxul ngeen wax ma daf ma woo nuyoowul ma ne ko nit booy wax ak moom da ngay nuyoo parce qu'on s'est jamais parlé. ba pare ay waxu tararari man séquma ko yow comprendre nga nit ki da nga am approche boo xamante ne boo ko xamul noonu ngay waxee moom ay tararari machin comme si maak yow ñoo màggandoo xamante bugguma yooyu lii laa gën a bañ sama àddina koo xam ne da ngay ñëw bëgg maa ñuuxu yareet faut arrêter ça s'il te plaît voilà s'il lii moo tax ñenn ñi dañuy ñëw ti baax ñu may jéem a dugg ma bloqué parce que dama xam àddina dama xam nit nit ñi dañuy ñëw ti dama laa bëgg indi la coono moo tax yenn saay du dara de man ko oyof laa mais xolal maay bloqué parce que amulu ma sens parce que nit ñi baaxuñu bref bu nekkee nag li ñuy dégg baax na wax leen ma wax leen ma dégg ngeen bu nekkee mu ngi baax def leen nii rek ma yeggali mu ngi baax non Sénégal dafa bëri ay dof ngeen baal ma ci kàddu gi dafa bëri ñoo xamante ni te noonu Sonko yi dañ fi bari dañ lay xool seen butit ci génn parce que yaa koy jàppale waaw ni mu nekkee ci xolu sénégalais yi noonu la nekkee ci butitu ñenn ñi te nag dafa mel ni nag dafa am ñoo xam ne dañ leen jox pour ñuy noppaloo sama genre gi kon sama genre gi bu ñuy wax Sénégal topp leen mbooloo topp leen du leen neex foo leen siñaale ma ubbi feneen nit ñi ñëw ndax man am na ñu bari ñoo xamante ne sax xolal ñu xamuñu ma sax parce que du maak ñoom maak seen mag ñi la ak seen tante ji dama liggéey fii liggéey bu am solo mais pour nit ñi wala ñenn ñi sax di mën a ñëw di jël sa liggéey teg ko en avant c'est tout un problème ay futilité rek nañuy wax kon man ay diw clash na diw di ngeen ko gis mais man kenn mënumaa clash ay diw ah dal na ci kaw diw li journalistes xoolaat leen seen ay titres c'est important c'est important ku am nawle mënta xeex ku ñàkk nawle voilà c'est ça. toppal fële. ñu am yar nit. daa ngi internet bi di tarara yi rek di wax Macky Sall lii Macky Sall laa Ousmane Sonko li ngay wax xamoo ci dara météo si wut soo tus loolu laa la wax ngay dof dof lu nii man faalewu ma la de sa tarara yooyu ak ñi ngay wax dafa foo ko yemale ngay dof dof lu noonu naan ay tarara rek yooyu toppal fële. rawatina nag bu la euh, sëñ bi nit da ngay am yar ay toppal fële machin da nga koy wax ñi nga xamante ne ñoom nga nàmpandool wala nga foowandool wala say morom koo faalewul faalewu la mais attends koo faale woon ne di nga jël sa téléphone di ko woo mais il faut arrêter nit da am yar sa tëlli tëlli gi machin loolu du àddina te góoxum soow na kenn ci woppal maa la ko daa ko foog mais dama la ne dama la ne nit même boo leen bokkul conviction war ngeen mën a sax sikki jàmm àddina da ngay ànd ak est que yaa ngi may tëgg doo sama mag duma sa rakk bokkul dara kon dangay am yar ci nit àddina nag bu la jayee ba ngay toog di telli li liy jël sa loxo bi di ko dóor mu ngi ñëw damaa bëgg nga régler ay toppal fële machin tout ça c'est pas bien jël naa sama temps tontu la comme xam nga wax ak yow déggoo kon ça veut dire que yow dafa mel ni yow yow yow sa xel mi leneen na ci nekk mais faut arrêter bu la àddina jaay ba ngay def sa yi amul sens faut yi man ci yi ngay wone maa la ko dàq fop mais da nga fekk heure bi sax samay dal jeex ma toog liggéey ba sonn wàcc kon nit da ngay am respect s'il te plaît il faut arrêter nii kenn du ko waxee. am na nga ngeen baal ma doo mbaam doo xaj doo doo doo je sais pas moi mais nit nga mais comporte-toi comme un humain yow lu la dal. bon euh, xam ngeen lu tax lu tax ma def ko mbirum politique la nekkul ay comme li ngeen di dégg ñu lay sosal naan la nii naan la laa boo nekkee ci showbiz di nga dégg lu nekk mais Sonko mii ku ciy wax ren ba déwén. nanga nga xoolaat sa bopp te nga xool say arrière juñu nag doy na borom xel kon arrêté dara bu amee nit ki di wax ngeen naan ko noo waroo woon waroo woon c'est bien facile parce que dund leen nit ki di dund yéen daaw ak ñaata yoon ngeen dégg ñu naan ndaak lii ndaak lii ndaak laa man dama biise woon de nekkoon ci ay soxla yoo xam ne àndut ak wax nekk di liggéey di lijjanti xaalis te àndut ak wax moo tax ma ne tekk toog di xaar bés rafet bi ma gisee nag fan yi sot gi bari ci laa ne xaaral ndax lii duma ko bàyyi ndax bi ma toogoon dégg sot gi bari woon à l'époque damaa jóg wax ñëpp génn dëgg la am déet kon man wax naa leen ko bokkuma Pastef waa Pastef ñu may dégg mais man sympathisant laa parce que dama gëm le projet de monsieur Ousmane Sonko kon tey même bu nekkee mënta dem mu toog ñu ngi koy déglu kan lay votel mu topp projet na votel kooku mu leer ko ni nag ndax nit ñi ay caméléon lañu bu duggee dina régler liggéey bañ a wor mbir mi am nañ ci droit ñun duñu ay noonu non c'est c'est vraiment dommage hein Sénégal fi nar a jëm c'est vraiment dommage boo nee Sonko léegi nit ñi di la saaga guddi saaga bëccëg bon écoutez je je laisse continuer. Euh, sëñ bi. attends bi déglu naa ko sànq. xam nga man fi may woo man duma dafa fekk da ngay wax ak sa nawle fi may woo duma dafa fekk li nga def ni yëpp maa la ko dàq waaye fi may woo bu soobee yàlla duma dafa fekk. te bul sagal ni am nga benn maqaama ci man ba ma lay jël di la bloqué su ma la bloqué dafa fekk man la neex est que comme boobu dama xam nga fi nga fi nga ma waxee. parce que boobu téléphone bi dafa fay rek déchargé xam naa mu ne dama ko bloqué léegi nag mu yónnee vocal mu saaga ndey déglu leen xaama indi ko ma ne ko xaama indi ko mu jël beneen numéro. ngeen baal ma parce que man yii sax du koy def mais je suis vraiment désolée lii la ma njëkk wax avant nee na. yow da war a maandu ci affaire yi xamoo dara nu mu demee ko katt naa kattul fekkee woo ko moo ñam wala ñamul fekkee woo ko nekkoo fa woon sa yónneewu ci xamoo nu mu demee comprendre nga bis ba jot coow am mosoo génn tey nga dégg xaw ma ko ruux ba nga génn di duur rek da ne di bàyyi yéen tamit seen hypocrisie yi seen faux yi ngeen nekkee toppal fële waay ndey ndaa katal sa nday man la aaduma xam nga ne mos boo ma bolokee dinaa ñëwaat katal sa nday fële li ngay wax maîtrise wu ci jopp ndayam boo gànnaatee ci affaire yi wax loo maîtrise wu rek ma jugaat toj sa la fa nday foofu laa yem katal sa la ma la tontu nga boleke ko moom laa lay yónneewaat. léegi nag li tax mooy man toog wax chaque jour ci internet bi du sama yëf moo tax nag damay leeral. parce que dinaa toog ne tekk toog di xaaraat di déglu parce que du ma fi nekk di def ay live chaque jour vues yi kenn lekk ko kenn naanu ko ñiy topp di fëlaw amee benn njëriñ dërëm doo ko ci am man sama dërëm damay dem toog di ko liggéey depuis ñaata ma nekk ñaaw loo xamante ni yéen ko gis wala dara dañu waxante dëgg waxuma nag ay waxu sos man dégg naa fi lu ne dama doon ree ma ne mais ndaag bi ñuy waxal anamu man ndaag boobu laa bëgg a gis ni anamu parce que ki ñuy wax man je ne kon su ma xasee ba ku dul wax bés bu waxee ngeen may ko nopp te tey laay mujj dindi ay tuuma ak ay wax ak yooyu mais nag li ma bëgg ñu leeral parce que boo nee tekk day mel ni ragal te mbir mi maa ci dugg song song ko bés bu ma gisee nag monsieur Sonko wàcc na ci projet lim ñu dégg su boobaa xoolal na neex waaw mais man maa gëm projet bi man. waxuma la Sonko de waxu nit laa dama leen ne man maa gëm projet Sonko parce que mbir mi du Sonko sonku dañ ko bëgg parce que daf ñu gëm looloo xamante ni. xam nga ku adhéré wul mais libre à toi ku gëmul libre à toi mais man mënuma ci dara ni ngeen ko bañee laa ko bëggee te moom sax du moom en tant que moom mais projet bi laa gëm. ak Ablaye Wade daf ñu dal ak monsieur Ablaye Wade daf ñu dal waaw olof Njaay nee na da ngay jooy saw katulal am puub katulal Bon, je continue. ma tontu ko ma ñëwaat. te maa ngi dal ah, parce que wax ci sax. man fi may woo man du ma la fa fekk. da wax ak sa nawle fi may woo du ma la fa fekk. li ngay def ni yëpp maa la ko dàq. waaye fi may woo bu soobee yàlla du ma la fa fekk. te bu ragal ni am nga benn maqaamati man ba ma lay jël di la bloqué su la bloqué dafa fekk man la neex. que comprendre nga li lay bëgg a wax. xëy moom laa lay tontuwaat faut arrêter man li nga def ni yëngalu ma ay saaga nday ay toj machin ay machin tout ça faut arrêter yi yëngalu ma faut sa bopp delloo sa xel. man li ngay wax ku ma bëggul nga yëngal ma doomu yëngal faut arrêter. dëgg la. fi nga ma message laa lay tontoo. te man yow yaay kan ba ma lay bloqué yow. man boo amee loo xam ne ñor na la da ñëw toog ñu jàkkaarloo ñu toog ñu débat ñu waxtaan comme des gens civilisés mais pas ay sànnante wax ay internet machin tout ça. commencé wu ma ko tënku du yow du yow laa koy commencé il faut arrêter quand même du dëgg voilà bonne parce que mbir mi dañu naan non bu ko tontu du sa nawle bu leen fàtte que dafa am sénégalais yoo xamante ni dañ fi nekk di déglu n'importe qui. nañ waxante dëgg man da ngeen maa mës a dégg may dindi tuuma te lan lañ fi waxul safuma parce que du dëgg parce que du dëgg mais dama bëgg ngeen dem au fond du problème lan moo tax nit ñi di ŋap-ŋapi te c'est pas le seul hein toute la journée j'ai reçu des appels des amis ay kilifa yoo xamante ne lu nekk nañuy gérer ci dëkk bi lu nekk dégg depuis démb ba tey am na ñoo xam ne jëluma sax parce que bëgguma yegg ñoom ci yenn wax yi yéen yaar yéen ma gën a xam da ngay laaj wax Sonko sa xarit yëpp dal sa kaw mais ci pour vous dire c'est pas c'est pas moom euh, tii ci ci kii bi maanaam forme bi du moom dañ naan non kii du sa nawle mais il faut arrêter ñiy waxtu sa nawle yéen yéen doo leen dem di ko déglu wala di déglu kay même mu nekkee doo leen ko gëm foo arrêter maanaam mbir mi dama leen ne y a quelque chose derrière wala y a quelqu'un derrière dafa ñoo xamante ni lii moo leen neex mais dama bëgg ñooñu xam ne fukki kooku noonu waa ji fukkam bu ñu ñëwoon sama làmmiñ bi xanaa borom bi subhanahu wa taala téye ko ma noppi damay leeralal rek kon ma mën a continuer yow kattal sa ndey laa wax comprendre ma tuunu ndeyam ndey nag kattal sa ndey boo fi waxaatee loo maîtrise wul dinaa génn def vidéo Dakar sa ndey maa la gën a def fuuf boo fi waxaatee loo maîtrise wul naa génn toj sa lëfal ndey foofu laa yem xanaa xam nga yow yàgg nañ maa jox say say cas ak say dossier say affaire mais man maa maandu woon rek da xamu rek mais gis nga soo xamoon barki Serigne Babacar si di nga moytu sa bopp du pas man de du ay menace de da ngaa xamul rek barki alxuraan karim. ñàkk réseau moo tax ma dugg à connexion 4G pour wax ak yow kon faut arrêter man ma ñu nga foog nga naan ay taw ay bloqué ay patati patata dégg nga wax di xiisal te di saaga di dem man nee naa la séquma ak yow loolu kon duma ci dem ak yow dégg dangay wax waxu nit ma tontu la tontu nit te bii mooy dernière fois may wax. avant beneen bi la loolu ma ko mën ubbi. parce que yow comme da nga mbaamee sa biir xel comprendre nga ay ndoxu day moo ci nekk comprendre nga dangay dem fi nga xamante ne fa la yi di puubee nga waxtaan ak ñoom man doo ma indi te say ñàkk fayda yii ah c'est bien beau nga toog saaga ngay ubbi machin mais arrête lan la lay jural lu lay jural yow tamit. oh mais c'est c'est triste ah. je suis vraiment triste pour toi. barki Cheikhul Khadim li nga wax traversé wul sama xol mais xoolal je suis vraiment triste pour toi te gis nga bés boo toogee bëgg waxtaan wala bés boo toogee dellu si waat sa xel man saa yoo ma message je suis là mais quant ay waxu dof yi man ma ko séq ak yow. Mm. voilà il faut respecter les gens c'est ça la vie àddina loolu la mais li nga def nii c'est trop facile. Vraiment. Tu me déçois beaucoup. xam nga nit di xuloo di xotteeku nga ñëw <laughs> di ko blasé man ku ma bëggul nga yëngal ma doo yëngal mu ne ma yow dangaa xamoo toogal xaar yow xamoo li xew d'accord yow moom rek yow barke Serigne Babacar si nday ndaak xamoo lu bari de loolu kay maa la ko wax billaay wallaay wa après mu ne ma dama gis ngeen da dafa juutu nag ne euh, dama bëgg ñu waxtaan kaay vous avez vu bi mu waxee loolu ma tontu ko loolu mu ne ma damaa bëgg ñu waxtaan et je rappelle que moom moo moom moo dem euh, génne oulala portable baa ngi déchargé moo ko dem génne TikTok moo tax nag ma parce que journaliste yi xam naa leen dangay wax dara rek ñu ñëw après boo waxatul ñu naan waaw dafa lii dafa laaj te projet bi man maa ko porté sama bopp soxloo ma ci doole kenn te soxloo ma kenn ku ma xeexal ndax mën naa xeexu mbooloo. Euh, sëñ bi dama la ne yow boo ma xoolee xam ne man duma ragal waaye dama la ne dama la ne déglu ma bu baax duma déglu say message nga nga yónnee duma ko déglu te duma la bloqué dama la archivé tegee la ne lay est-ce que comprendre nga li ma lay wax mais sauf ko c'est triste parce que Serigne Touba Mbacké c'est triste fi nga koy rëccoo ce trop tard. da ngay wax ak koo xamante ne lii safu ko man lu ma déggul amul maa ngi toog ne teg di liggéey di dem di ñëw comprendre nga mais xam nga man boo waxoon ak man du ma la ci mës a woo di la conseil parce que sama bopp nga te danga dëgër gat doo man boo jàkkaarloo ak man ngay saaga su boobaa ma delloo ko sa ndey waaw parce que ndey ndey la waaye pour waxu téléphone dama ko ne bés bu jàkkaarloo ak man mu neex ay wax pour mu dem du man non attends du ma ko def yow même même bés bu ñu toogoon sax ba bara nekk xarit laa wax yaakaar ko sax mu am dama lay taggal ba pare delloo la ko man ku ma xoolal ku ma teree añ la reer parce que Cheikhul Xadim waaye nag <laughs> xeexu faru yi ay waxante barki Cheikhul Xadim mënuma ko te gis nga fuñ toll nii sama xol bi ci boppam moo diisul sama xol bi mettiwul sama xol bi doomu aadama mënalu ko dara xam nga lu tax dama xam ne yàlla téye na sama destin en main yow nag danga nekk xale di foo di wiir nga mel ni ku gëlëm delloo sa xel nit nga tu es appelé à avoir des enfants des femmes même bu nekkee sénégalais yi boo waxee tey suba ñu fàtte nañ waxante dëgg ah, li ngay def nii amul sens man ma xeexuma maa ko dàq ñëpp nag waaye nag. non gis ngeen bu leen yaakaar. ñëpp nag je laisse waaye nag kon su ma ko defee day fekk man mu neex ma mais kenn du ma ci woo ah may ñëw ci yow sa rythme. comprendre nga est-ce que voilà woo naa la ci waxtaan déggoo kon heure bi c'est trop tard parce que gis naa la xam naa la xam nga je je sais que voilà. bon je vais accélérer. bëgg noonu daal mais sañi nga def nii satuma. dama ko accéléré bu yokk man yàlla bu taxawoon dara lu xew loo ni ko borom bi kaay kii ak kii attel ñu pour te dire que ragaluma tamit je suis pas froid aux yeux mais sauf que li ñuy def nii amul maanaa sincèrement xam nga répondre toi lii xam nga nga nga xool nooy nooy nooy tu comprends. tu n'es pas être chômeur kon ça veut dire que am na ci loo xamante ni jàpp nga ci. li nga defee amul sens sincèrement bii nag mooy sama dernier message. c' juste pour te montrer que Melouma mais vraiment tu me fais de la peine en fait sincèrement tu me fais de la peine ah yow tamit ku mel ni man la mag sax mënu ko faut arrêter faut arrêter li nga def nii man lu ma la ci fekk je suis j'ai pitié en fait ci sa doxalin billahi yal na la yàlla ma soppeeku man bu ma soppeekoo du tey Serigne Mansour borom daara yi moom yow yaa war a nekk nit Macky Sall bi ngay wax di wax di xas di gaaruwaal loolu nga laa bëgg nga arrêté ko c'est ça le euh, kon nag euh, mbir maa ngi nii li mooy euh, comme dëkk bi dañoo bon di sosalaate di fenalaate bu leen toog di naan bàyyi leen ki ngeen di waxal machin boo leen demee xool kontam xam ne ay sénégalais ñoo koy topp kon yéen war a arrêté faut arrêter comme xool naa nag seen position parce que nag. nit da ngay wax ak sa nawle mais gis nga sénégalais gu ñuy déglu ci journalistes yi mooy pas les journalistes sax mais ñi nga xam ne ñooy euh, ñoo ñoo ubbi ñoo ubbi ay site internet bu ñu ko jëlee reprendre ko doo xam ni ñu koy waxee kon damaa bëgg wax ci leer moi je boo xam ne dama sereine man pëq yóbbalu ma mais am naa droit tey comme ni ma ko waxee sànq remettre les points sur les i parce que du ma a toog di wax wala di débat tous les jours parce que comme da ko génne moo tax nag ma ne dama koy génne parce que man tamit bu leen fàtte que dama am ndey man duma chinoise sénégalaise laa dama am ay dëkkandoo ma dëkk fi pendant des années xamaluñ ma ti lu ñaaw ba ci sama boutique bii ñoom laay dëkk paal xamaluñ ma lu bon ba ci sama paa bi nga xamante ne ci jaaykatu fruit bi la bokk ñooy sama ñooy sama ay dëkkandoo kon am na loo xam ne bu ñëwee te koo xamante ne ñu bëgg ko ñu bañ ko wax kat la moo xam muy wax lu baax wala lu bon mu am ñoo xam ne dañ koy déglu mu am yenn presse yoo xam ne buzz nañuy bëgg dañ koy topp kon dafa normal ma leeral parce que nag sama voix moo dem te ay waxante la man loo xamante ni du dëgg dama naan tekk duma ko faale mais bu amee benn euh, mbir moo xam ne xew na seen normal que je puisse excusez-moi au moins éclairer waaw lanterne bi dañ ko war a éclairer c'est la moindre des choses wasalaam maa ngi jéggalu nag di jaajëfal ñëpp di wax ni nag euh, euh, léegi internet bi dafa doy waar ba nga xamante ne ku nekk mën na jug def la la saf mais ñi nekk ci ginnaawam man c'est pas moom en tant que moom dégg ni ma ko waxee gis ngeen mbir c'est pas parce que nit day ñëw rek xuloog yow bëgg nga xuloog moom dangay am force tranquille te lii laa bëgg yenn nit ñi ci internet bi ñiy woowee seen bopp patriote ñu am ko du nit rek day ñëw ni tëll rek ñëpp merandoo ñëpp fàqandoo partagé ndoo moi je dis sama dal bii ma nekkee sama pays intérieur bi ku xam ne dëgg xam ni xam ni dama dal dama sant yàlla parce que sama xol mettiwul mënoon naa mer fët fëti saaga ko mais dama koy rëccu dama koy rëccu parce que bi ma ko déglu xaw ma woon ni moom la su ma ko ubbee nag sama téléphone moom ku xas ba wax ak man su ma neexee tontu la su ma neexee wax ak yow léegi nag yow boo jëlee wax ci yóbbu ko foo xamante ne ci internet la man ma am suñu conversation dafa baax ma leeral parce que nag damaa jur te ki ma jur mun nga waxal lépp yaayam xameewlu ma lu bon tey dama doon ruus di jàkkaarloog ci écran bi ci après su ma ëlbatikoo fay nekk ci yoo xamante ne mooy yooyu kenn xamalu ma ko te kenn duma ko gisal voilà kon nag euh, euh, wasalaam di wax rek